di ñaan si moom subhaanahu wa taala jéggal ñu suñu bàkkaar surtout ci weeru koor gi nga xam ne weeru jéggal la di ñaan suñu boroom subhaanahu wa taala yëkkati ñu suñu daraja yëkkati ñu suñuy daraja ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey jii nag dinoo fas yéene woon ak continuer euh, téere bi nga xam ne moom lañ commencé woon fan yii la passé te mooy amdatul ahkaam di jàngale ci liñ naan ahadithul ahkam daf mel ne jotoon nañoo leeral lan mooy ahadithul ahkam te ci gàttal mooy xadis yi nga xam ne boroom xam-xam yi ci la ñuy sukkandikoo pour mën a tibbee àttee sharia yi di ko ji jëf niki noonu tamit euh, jàngale woon nañ njariñu jàng lu mel nii maanaam njariñu gëstu li nga xam ne mooy xadis yu mel noonu nee woon euh, ki nga xam ne nee na faqih la ki nga xam ne nee na day jàng fiq dafa war ci moom mu gëstu téere yi nga xam ne day jàngale ci ahadithul ahkam ndaxte maanaam bu doon jàngale ab lii nii ab àtte nii mu xam ci ban xadis lañ ko jëlee ci ban xadis lañ sukkandiku ba tibb àtte boobu noonu loolu noonu bokk na ci njariñu jàng xadis na noonu ni ki tamit jotoon nañoo leeral maanaam ñaari baat yi moo al ahadisul ahkaam loolu neewoon naa xadiis mooy lépp loo xam ne dañ koy askanale yonent bi sallallahu alayhi wa ahkaam ci baatu xukm la jógee te mooy bépp wax joo xam ne suñu boroom subhaanahu wa taala moo ko wax te muy concerné ki nga xam ne war na ci moom mu wéyal attey suñu boroom subhaanahu wa taala imma mu koy digal mu def dara wala mu bàyyi dara wala mu koy xibaar naan ko lii charte la wala lii sabab la wala boobu mu koy tànn mu koy tànnaloo diggante ñaari mbir te mooy at taklif yi wadda yi ak al ibaaxa taklif yi mooy maanaam suñu boroom digal na nga bàyyi dara wala nga def dara te limoon naa ay xaajam mooy farata ah, mandub xaraam makruh ak Euh, mubaax alwadaayi niki noonu limoon nañ ay xaajam sabab shartu ruxsa illa fasaad suxa al ibaaxa leen di borom xam yu yi nee ci àtte tak ci xaaju taklif yi la bokk waaye ñu bari dañ naan lii àtte boppam la ibaaxa àtte boppam la te mooy euh, mbir mu dagan rek ibaaxa mooy mbir mu dagan rek niki suñu borom subhaanahu wa taala tànnoo la diggante ñaari mbir bu la neex mën nga cee mën nga kaa jël mhm. ginnaaw bi ñu jàllee ci loolu jotoon nañoo leeral tamit maanaam xadiis yi nga xam ni moom lañu war a moom moo mat a gëstu maanaam ci gàttal daal moo nga mën a waxee maanaam mooy xadiis yi nga xam ni ah, moom lañ mën a sukkandiku ba génnee ci àtte sharia xam nañ ne xadiis mooy lépp loo xam ne askan ne nañ ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye ba xam lépp lu askan ne nañ yonent bi sallallahu alayhi wasallam mën nañ cee tibb àtte sharia déedéet ndax xadiis daa am catégorie daa am yoo xam ne liy jàngale ci aqida am yoo xam ne euh, dañuy nettali histoire yi xewoon euh, njëkk yonent bi sallallahu alayhi wasallam am yoo xam ne day jàngale ci yeneen yeneen ni ki ihsaan ak yu mel noonu li ñun lu ñu concerné mooy xadiis biy jàngale ci xadiis bi nga xam ne day dañ ciy tibbee àtte dañ ciy tibbee ay ahkaam loolu moo nu yitteel te ne woon naa ne saa boo tasante ak xarit yi mel noonu firiwul ne fa force mën nga tey ci biir atte mën nga ci biir atte sharia ndaxte borom xam-xam yi dinoo lal ay xawaarid yoo xam ne foog xadis bi matal ko maanaam ay charte yoo xam ne foog xadis bi matal ko pour ñu mën a wax ne lii nii ok mën nañ kaa jël pour tegtaloo ci te ji ñaari xaaj yu lay dellu imma bu doon mutawaatir wala ahad mooy xadis boo xam ne ñi ko riwaay bari nañ bari waay boo xam ne ci aada dañ naan lii nii mënut a doon waxi neen waxi dëgg la mën a doon waaye mënut a doon wax boo xam ne waxi kadib la ahad mooy xadis boo xam ne ñi ko riwaay bariwul noonu ñi ko riwaay bariwul noonu waaye bu fekkee musnad wala mursal la man bu boobaa dañ ne lii nii danañ ci mën a tegtaloo pour tibbee ci àtte sharia loolu mooy ñaari xaaj yooyu mutawaatir ak ahad xadis bu ñëwee matal ñaar yooyu bu ne bu ñëwee doon mutawaatir daneen daneen ci tegtaloo bu ñëwee doon ahad bu fekkee musnad wala mursal la dinañ ko nangu hmm. daf mel ne ci commencement téere bi nii jotoon na cee jàng euh, juróomi xadis nañ cee jàng juróomi xadis pour revise xadis téere bii nii kuñ naan Abdullah Abdul Ghani ibn Abdul Wahid moo ko taalif moo ko taalif te mu nekkoon benn borom xam lu bu mag ci madhab xanaabila ah, borom moo xam-xam bu mag sax moo taalif téere bi ñuy Umdatul Ahkaam te commencé nañ ko fan yii passé jotoon nañoo juróomi xadiis yi jiitu ci téere bi kon tey ñëw continuer ah, commencé ci juróom-benneelu xadiis bi an abi hurayrata radiallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala ida shariba alkalbu fi inaai ahadikum falyagsilhu sab'an wa li muslimin ulaahunna bituraab wa lahu fi xadiisi abdillahi bni mugaffal anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala ida walaga alkalbu fi linaai fagsiluuhu sab'an wa affiruuhu thaaminata bituraab xadiis bi nii Abu Hurayra radiyallahu anhu moo ko te Abu Hurayra bokk na ci ñi nga xam ni ñoo ëpp ci luñ nettali ci xadiis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam turam dëgg-dëgg mooy ab Abdurahman ibnu Saxar Abdurahman ibnu Saxar ñu ko naan Abu Hurayra Abu Hurayra nee na yonent bi sallallahu alayhi mooy ab kalbu ab xaj doog bu naanee nabu kenn ci yéen nit ki nga ñëw teg ab nab nii ab xaj ñëw naan ci yent bi nee na nab loolu noonu na nga ko raxas juróom-ñaari yoon na nga ko raxas juróom-ñaari yoon seven benn ci juróom-ñaari yooyu na ko raxasee suuf na nga ko suuf niki maanaam bool bi na nga juróom-ñaari yoon juróom-ñaari yoon ak ndox na nga ko raxasee ndox juróom-ñaari yoon juróom-ñaari yoon nan ne raxasee nga kaa ndox juróom nan raxasee nga kaa ndox ñaari yoon ñetteel bi mën nga kaa raxasee ak suuf maanaam nga jël lii suuf nga raxasee ko bool bi ndax sobe si gën a gën a lii gën a dañ gét gérét ñëwee nga maa maa ngi maanaam daal li ñuy sàkku fii mooy ab xaj bu jëlee làmmiñam dugal ko ci ndox ndox moo xam daa def comme ni ko Abdullah ibn Mughaffal waxee ci beneen partie bi ida walaga al kalbu fi l inaai faghsiluhu sab'an wa affiruhu thaaminata bi turab ni ki ab xaj bu ñëwee jël làmmiñam dugal ko ci benn bool bu am ndox di naan yonent bi nee na bool boobu na nga ko raxas juróom-ñaari yoon juróom ñaari yoon juróom-ñetteel bi na nga ko raxasee suuf maanaam na nga jël suuf bommee ko bool bi ndax mu gën a ndax mu gën a set léegi xadiis bii nii ci la boroom xam-xam yi sukkandikoo ci ne kon alkalbu te mooy xaj dafa sobe maanaam xaj jëmmi xaj daa sobe carrément ndaxte ginnaaw yonent bi dafa daf ñu woon diggal ñu raxas bool bi juróom-ñaari yoon raxas diggalu ñu ñu raxas ko benn yoon waaye juróom-ñaari yoon ñu digal ñu digal ñu raxas ko kon loolu noonu day firi ne kon xaj maanaam sobaayam tar na lool maanaam xaj dafa tar lool loolu la la ëpp maanaam ñu ëpp ci boroom xam-xam yi loolu lañu wax waaye Malik nag maanaam ni mu gisee Malik ibnu Anas ni mu gisee xadiis bi dafa wute nee na at tasabuxu wa tartiibu gayru macquulin innama huwa taabudiya innama huwa taabudiya wa laysa min ajli najaasa nee na digal bi ñu wa sallam digal pour ñuy raxas bool bi juróom-ñaari yoon ak suuf tamit firiwul ne xaj dafa sobe waaye li muy firi ne muy firi li muy firi mooy mbir la moo xam ne si moom dañu ko digal nii rek pour ñu def ko waaye xamuñ lu tax waaye xamuñ lu tax loolu mooy masala taabudiya mooy masala boo xam ne suñ borom dañoo digal ñu def ko waaye xamul ñun ci jëmmam ñun sax ñun xamuñ lu tax suñ borom digal ñu ko loolu mooy masalatu taabudiya Maalik loolu la wax waaye leen ci borom xam ne neen déedéet xadiis bi day wane ne kalbu xaj sobe la ndaxte ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci làmmiñ bi mu dugal ci biir nab li rek nab li dañoo digal pour ni raxas ko juróom-ñaari yoon loolu moo koy firndeel loolu moo koy firndeel beneen question bi mooy ba ah, maanaam suuf dana am dana dana am lu ñëw taxaw taxaw taxawaayam ni ki bool bi dinañ kaa saabu wala li nga wax sànq sànq ba xam maanaam saabu mën naa ñëw taxaw taxawaayu suuf affaire dafa dafa compliqué ci yéen wala gaz gi rek compliqué ci yéen dafa compliqué maanaam yonent bi dañu digal bool bi ñu raxas ko juróom-ñaari yoon juróom-ñaari yoon yoon nag yooyu noonu nag naa ko def maa lii juróom-ñaari yoon yooyu nag maanaam benn ci juróom-ñaari nag raxaseeg suuf comprendre nga li suuf. léegi ba xam am na lu mën a ñëw taxaw taxawaayu suuf boobu maanaam ni ki saabu wala eau de Javel wala chlore waaw chlorant eau de ba xam lu mel noonu dana ñëw taxaw taxawaayu suuf bi ba xam mën ngaa jël saabu raxasee ko ndab li saa nga koy raxasee suuf leen ci borom xam ne ni ki Ibnu Daqiq An-Iid nee na déedéet yéen dugg semence lu muy digal mooy raxasee ko suuf raxasee jël boobu raxasee ko suuf ba mu set wecc waaye mun ñoo jël leneen dul suuf di ko raxasee di ko raxasee bool bi mun ñoo jël saabu di ko raxasee bool bi waaye hmm? <laughs> waaye ku mel ne Ahmed ibn Hanbal nee na déedéet li ñu ci jublu mooy daal na bool bi set wecc na set kon li ñu ko mën a setalee dana baax bu ñu jëloon saabu wala leneen dul saabu leneen loo xam ne day setal setalee ko bool bi setalee ko bool bi gën a nga nan beneen mas beneen question mooy xam nga dañ naan maanaam euh, sharia may na la nga jël ay xaj ni ki ab xaj nii pour mu garder la sa kër yor ko sa biir kër ne nag ay pet ngay foofu moom yi wala waaye pour mu gàddee la sa kër ak yu mel noonu ba ma xaj yu mel noonu dañ koy exclure ci masala bi ba xam ay xaj yu mel noonu maanaam dañ naan du dugg ci xadiis bii nii xam du dugg ci xadiis bii nii li gën a feeñ li gën a xam mooy xaj bu mënti doon moo xam xaj bi garde la moo xam xaj yi taxawal ci mbedd yi la yooyu yëpp day dugg ci xadiis bii nii maanaam xaj yi seen àtte benn la te mooy ay sobe lañu xaj yëpp dinoo maanaam sobe la xaj bu mënti doon sobe la seen àtte benn lañ am na nekk ñu naan déedéet xaj yi nga xam ne dañuy garde yenn bu metti yenn maanaam bu fekkee ni saa mun laalee bool bi na nga kaa fas yéene raxas juróom-ñaari yoon day metti kon loolu noonu euh, du dal ci ñoom waaye li gën a siiw daal te boroom xam-xam yi dëppoo ci mooy xukmun waaxidun seen àtte bi benn la xëj sobe beneen question mooy loo xam leneen loo xam ne moo gën a tar xaj leneen loo xam ne booy xool moo gën a salte xaj fuuf moo xam ne duggaale ci xarit bi ni ki xinziir nga xam ne mooy port porc waaw xam ne mooy porc animal bi porc ni ñoo ko tudd mooy porc li nga xam ne mooy pig li ah, nga xam ne mooy pig ba xam maanaam day duggaale ci xarit bi xam nga pig boo xool moo gën a salte xaj moo gën a salte xaj foofu ba xam dañ ba xam dañ naan kon pig bu ñëwee pig mooy maam xuux ba xam maam xuux bu ñëwee nit kii jël laa dugal ko ci benn ndab ba xam ndab loolu ñu koy raxas juróom-ñaari yoon wala ndax ginnaaw moo gën a tarxaj ba xam ni ñu koy raxas juróom-ñaari yoon wala ba suuf déedéet li gën a siiw mooy waaw li gën a siiw mooy maanaam pég walla loo xam ne moo gën a tarxaj fuuf bu ñëwee def li nga xam ne moom la xadiis bi di wax kon boobaa àtte bi benn lay doon kon bu waa mi ki ba nab loolu noonu ñu koy raxas juróom-ñaari yoon mu ànd ak waaw mu ànd ak suuf maanaam lépp loo xam ne moo gën a tar xaj wala moo gën a yem ak xaj ci sobe ah mi ki bu ñëwee lekk ci nab loo xam ne wala boog jël làmmiñam def ko ci nab loo xam ne daa am ndox kon nab loolu noonu dañ koy raxas juróom-ñaari yoon mu daf raxasee ak ak suuf loolu moo nekkoon loolu moo nekk àtte yi nga xam ne dañ koy tibbee ci xadis bii nii te mooy ida shariba alkalbu fii inaay ahadikum falyaxsilhu sabaan wa ida walaga alkalbu fi l inaay faxsilhu sabaan wa afiruhu taabiata bi kitaab leer na wala lii nag taxawalante dañ jàll ci juróom-ñaareel xadis bi léegi nag xanaa kay xaj bi jëmmi xaj bi léegi bu fekkee ne nag leneen maam leneen moo dugg ci ndab bi ni ki yaram léegi ndax ñu bari dañuy faral di laaj xaj bi damaa riisu ba xam damay gis ndox ci sama yére bi àtte yu mel noonu wala day ah. yem ci làmmiñ bi rek. ah déedéet day yem ci làmmiñ bi kese de maanaam jëmmi xaj ci boppam maanaam jëmmam nga laajal ma ko incha an xumran mawla usmaan ibn affan annahu raa usmaana daa bi waduin fa afraga ala yadayhi min inaaihi fa wasalahuma talaata marrat tumma adxala yaminahu fi lwadui tumma tamadmada wastanshaqa wastanthara tumma gasala wajhahu talaata ويديه إلى المرفقين ثلاثة ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثة ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه كنا عمران حمران ابن أبان موني رأى عثمان دعا بوضوئه وانا لا عثمان بن عفان di woote pour ñu indil ko ndox moo xam dañ ciy jàpp bi wa bu in ah, maanaam lopp ci noonu li ñuy faral di li ñuy faral di dégg mooy wudu wudu wudu in bokk teg wadu in waaye ñoom ñaar am na différence am na différence bu lii sax ah, bu xaw a yéeme annawi nee na al wuduu wa tuhuuru bi fat bi dammi ulaahuma ida uridu l fi'la ida uridu l fi'lu alladi huwa al masdar maanaam waduin waduin seen différence mooy dañuy ma waaw gi bu fekkee ne dinoo nam ma wax jëf ji maanaam bu fekkee dinoo nam ma indi masdar bi maanaam jëf ji nga xam ne mooy jëfi jàpp waaye bu fekkee dañ kaa fatxa mooy nox mi nga xam ne moom lañu utiliser pour jàpp mooy ndox mi nga xam ne moom la ñu utiliser pour jàpp comme fii ni mu ko waxee daa bi wa doo in wa doo in foofu li ñu jublu mooy ndox mi nga xam ne moom lañuy ñuy utiliser pour jàpp bu ne man bu bu waxoon wudu mooy jëmmi jëf jàpp li loolu mooy seen différence nee na daa gis Usmaan ibn Affan di woote pour ñu indil ko ndox moo xam ne dañ ciy jàpp xumroon moo wax nii nee na bu ko ko indilee mu raxas loxo mi Usmaan ibn Affan raxas loxo mi ñetti yoon. talaata marrat après daal di dugal loxoom bi ci ci ndab li daal di gallax ndiku sarax ndiku fiiru après daal di raxas xar kanam bi ñetti yoon raxas euh, loxoom yi ba ci coñcoñ bi ñetti raxas bi raxas tànkam yi ba ci tikki jara ñetti yoon du noonu lañu ñuy jàpp duñ jàppoon mm-hmm. après Ousmane ba mu jàppoo ba noppi ne raaytu nabia sallallahu alayhi wa sallam tawaddaa naxwa wudui hada wa qala man tawaddaa naxwa wudui hada thumma salla rakaatayni laa yuxadditu fihima nafsahu gafara allahu lahu ma taqaddama min danbi Ousmane ba mu jàppoo ba noppi daf ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dama kaa gis muy jàppoo nii ni may jàppoo te la jàpp ni ki noonu la jàppoo après nag ne képp koo xam ne def na nii ma def maanaam ni ma jàppoo noonu la jàppoo topp mu julli ñaari ràkka man moom jàpp noppi daa julli ñaari ràkka te ci ñaari ràkka yooyu maanaam xuusul ci mbiru àdduna maanaam xalaatul ci mbiru àdduna wala boo xalaatu ci lu bari kon bu boobaa su moom subhaanahu wa taala dana ko jéggal bàkkaar yi nga xam bàkkaar yi nga xam ne moo jiitu woon bàkkaar yi nga xam ne moo jiitu woon mu ne Oustaz doon na wax keroog jàngal ni naka lañuy ñuy jàppee nan la ñuy jàppe waaw waxaat ko maanaam Usmaan ibn Affaan naka la doon jàppe nan la gisee Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàpp xam ne nan jàpp raxas loxo mi ñetti yoon raxas xarkan ñetti yoon loxo yi ñetti masaa ah ok mun maa daa masaa bopp bi masaa bopp bi daa masaa bopp bi topp mu raxas tànkam yi ñetti yoon nopp yi nag maa ñëw damay tiim nii waaye ngi ñëw ah topp mu lan raxas tànkam yi ñetti yoon maanaam képp koo xam ne jàpp na ba noppi fi ne nii li ma leen a bëgg a leen ñaanal mooy lii nii may waaj wax maanaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na képp koo xam ne jàpp na comme nii ma jàpp topp mu jël ñaari ràkka ñaari ràkka yoo xam ne du xuus ci mbiru àdduna maanaam xelam daal du dem ci mbiru àdduna lu bëri ni ki muy muy julli di xalaat ne war a dem ju daa war a dem liggéey wala di xalaat ne war a def lii wala daa war a def laa loolu noonu fekkee maanaam fekku ko ci bu jullee ba noppi suñu borom subhaanahu wa taala dana ko jéggal bàkkaar yi nga xam ne moom la defoon ci lu jiitu moom la defoon ci lu jiitu bàkkaar yooyu nag ñu ci jubloo wax mooy bàkkaar yi ndaw ndax bàkkaar yu mag moom suñu borom subhaanahu wa taala euh, du la ko jéggal lu dul nga tuub ko maanaam lu toog dul nga toog ak naaluj ko wane ne maanaam yaa nekkoon ci ñumte kon fii li ñu ciy wax mooy bàkkaar yu Ah, Bakari ነው léegi xadiis bi xadiis bii nii ci la boroom xam-xam yi sukkandiku ci ne al istinshaq te mooy sarax ni ko dañ kaa sopp dañ kaa sopp ci ci jàpp buñ nee dañ kaa sopp mooy sunna la rek moo loo xam ne sunna la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko imaam Maalik Abu Xanifa Shaafi ñoom nee nañ dañ kaa sopp maanaam istinshaq li nga xam ne mooy sarax ni dañ kaa sopp bokk na ci li mu sukkandikoo mooy xadis bi ak beneen xadis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naan ashrun min sunanil mursalina maanaam fukki yi bokk na ci sunnay yonent yi te fukki yooyu noonu bokk na ci al istinshaq am ñu ne al istinshaq mooy ko daa war ci jàpp daa war ci jàpp ñoom ci lan leen sukkandikoo bokk na ci leen sukkandikoo waxi si borom subhanahu wa bi mu naan fagsilu wujuhakum maanaam fagsilu wujuhakum da ngeen raxas seen xar kanam waaw raxas xar kanam nag istinshaq da cee bokk da cee bokk xar kanam nag maanaam nopp bi da cee nopp bi da cee bokk wala bokku ci bokku ci waaw waaye li gën a siiw rek te ñi koy jàng ci surtout ñun ci suñu suñu suñu suñu mazhab te moom mazhab Maalik mooy al istinshaq mustahabun maanaam istinshaq sunna la boo jàng ci boo jàng euh, ibnu ngi la naan sunanuhu madmadatu istinshaq madmadatu istinshaqu maanaam bokk na ci suñuy jàpp istinshaq ñu sarax ni ko ni ki noonu tamit ci bii bi ci la boroom xam-xam ci ne massa lu war la farata la massa bopp farata la ma li yéen yenn saa li ngeen li ngeen di jàng ah, yenn saa yeneen madhab yi ñoom li ñuy li ñuy jàng wala boog li nga xam ne moom leen xam te mooy àtte ci ñoom day wuteek ñun moo tax yu bari ah, mën naa am duñ ko mën a lii duñ ko mën a day bees ci ñun daal day bees ci ñun aha maanaam ci xadiis bi ci la borom xam yu bari sukkandikoo ci ne maanaam masaa bopp lu war la wujubun hmm. ci loolu tamit maanaam ci la ci leen sukkandikoo ci masala bi te mooy masaa lépp maanaam masaa bopp bi lépp mu jamiihinna lu ñu sopp la maanaam ngay jàpp nii masala sa bopp bépp nee na dañ kaa soppi dañ kaa soppi léegi masala bi wala boobu wutee bi fi mu amee mooy ba xam mën ngaa masala lenn sa bopp bi bàyyi li ci des ndiki ngay jàpp ba si yàgg masaa xar sa xar sa lii bi nga am masaa bopp bi bàyyi li ci des ñu bëri neenan nañ loolu noonu dagan na xam naa nag mosoo ni kaa dégg ndiki jàpp ba noppi masaa xar kan masaa lii bi rek masaa xaaju bopp bi rek dem bàyyi loolu ñu bëri ci borom xam yi nee na dagan na waaye suñu lii euh, suñu ngir imaam Maalik nee na loolu noonu daganul loolu noonu daganul te Ibnu Qayyim nee na amul benn xadiis boo xam ne rod na jógee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buy firnaal ne masa xaaju bopp bi bàyyi li ci des bàyyi beneen xaaj bi dagan na Ibnu Qayyim moo ko waaye ñi nga xam ne ñoo ne maanaam boo doon boo jàpp ba noppi boo doon jàpp di masaa boo doon jàpp ba yegg fi nga war a massaawee sa bopp bi massa benn xaaj bi bàyyi bi ci des ñoom ci fan leen sukkandiku ci ban xadiis wala ci ban aaya leen sukkandiku li ñu wax mooy aaya bii nii la te mooy bi suñu boroom subhaanahu wa taala naan wamsaxu bi ruusikum wamsaxu bi ruusikum maanaam na ngeen masaa lenn ci seen bopp bi ñoom noonu lañ firee aaya bi da masaa lañ ci seen bopp bi ndax baa boobu nee na ñoom baa un lit tabaid ba baa boo xam ne day ñëw pour xàjjale waaye ñëwul pour pour euh, ëmb lépp ñoom ci loolu ñu sukkandikoo hmm. ah, lan moo ne loolu moo nekkoon doom ñaareelu xadiis bi Mhm. juróom-ñetteel bi te même jour lay jàngale maanaam ni ñuy jàpp an amr ibn yaxya almazini an abihi qaala shahidtu amr bn abi lxasani sala abdullah ibn zaydi an wudui nabiyi sallallahu alayhi wa sallam fa daa bi tawrin min maain fa tawaddaa lahum wudua nabiyi fa tawaddaa lahum wudua nabiyi sallallahu alayhi wa sallam fa akfaa ala yadayhi min altawri fa gasala yadayhi talaata thumma adxala yadahu fi ttawri فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات بثلاث غرفات ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يديه فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه عمرو بن أبي يحيى عمرو بن يحيى المازني moo jëlee ci baayam maanaam papaam moo ne man da fekkee naa bi amru ibnu abil xasan di laaj abdullah ibnu zeydi naka la yonent bi sallallahu alayhi daa jàppoo am ba mu jàpp daal naka la daa jàppoo daal maanaam melal lañu ko abdullah ibnu zeydi wax kenn mu indil ko ab nab ak taw taw mooy ina mooy nab rek nab bu am ndox mu ko indee mu commencé jàpp raxas loxoom ñett yoon gëlaax ndiku sarax ko ñetti yoon raxas xar kanamam bi ñetti yoon raxas loxo yi ba ci ba ci lion bi ci concam ñaari yoon après masa boppam bi commencé ko ci saxu euh, ci euh, euh, lii bi ci commencement lii bopp bi maanaam lii bi daa xam ni koy waxee ci jëwam bi fii la commencé daal daal dem ba ci ndongam ñi après dellu si waat dellu si waat ñaari xadiit yi nii booy booy boo koy seetlu am nga loo ci gis te mooy maanaam ah, Usmaan ibn Affaan bi muy jàpp Abdullah ibn Zayd bi muy jàpp maanaam noppi yu yooyu noppi noppam yi liwu ko ci daan wala boog jàngaluñu jàngaluñu ci ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa raxas noppi noppam yi daana raxas waaye li ñuy wax mooy maanaam fa wasala wajhahu talaatan maanaam nit ki buy jàpp buy raxas xar bi nit ki Abdullah ibn Zayd ba muy raxas xar kanamam bi daa raxasaale noppam bi daa raxasaale noppam bi ndax kon ñu wax sànq maanaam bu alwajhi alwajhi am nañu am ci dugalaale nopp bi am na ci dugalaale nopp bi moo tax fii nii doo dégg fenn fii Amr ibn Yahya naan Abdullah ibn Zayd daa raxasaale noppam bi wala fu xumroon naan Usmaan bin Affaan daa raxasaale noppam waaye li ñuy suum mooy alwajhi da ciy dugalaale lii bi al udna da dugalaale noppee mhm. ñaari ci dañ ci jàngee ak ay masala yu bari bokk na ci masala yooyu mooy maanaam nit ki biy jàpp raxas maanaam biy raxas boppam bi waaye bi masaa boppam bi benn yoon kese la ko war a masaa waru kaa masaa ñaari yoon wala ñetti yoon kuñ naan mi ngi naan xadiis yu wér yépp day tegtal ne yonent masaa bopp bi benn li sax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy booy masaa sa bopp bi benn yoon yoon kese nga war a masaa borom xam yi nag am na ci lu ñu wutee ci lii bi ci xadiis bii ne am na ci benn ixtilaaf am nañ ci benn ixtilaaf te mooy ni ki nit ki biy jàpp buy masaa boppam bi maam ci ndongi la war a commencé jëm kanam wala fii ci jëm bi la war a wala ci saxu kanam fii nii ci commencé ci kanam la war a commencé maanaam nit ki masaa bopp bi ci kanam la war a commencé dem ci ginnaaw wala ci ginnaaw la war a commencé ñëw ci kanam li gën a wér te ñu bëri accepté mooy maanaam nit ki bi masaa xat bi masaa boppam bi fii la war a commencé dem ci ndongam ci ndongam li après yéegaat ci kaw loolu mooy lii bi mooy farata dikk bi mooy sunna waaye am na ñoo xam ne dañ naan déedéet fii nii la ñu commencé ci ndongi la ñu commencé jëm kaw am na ñuy am na ñuy liiwee noonu am na ñuy jàppoo noonu alxadiisu taasic juróom-ñeenteelu xadiis bi jëleen ci Aïcha radiyallahu anha qaalat kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama yucjibuhu tayammunu fi tanaculihi wa tarajulihi wa tuhuurihi wa fi sha'nihi kullihi Aïcha radiyallahu anha moo ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de lépp lu mu daa def maanaam neyjoor la jiital bu daa niki bu daa sol ay dàllam tànku ndeyjoor bi la daa jiital bu daa peñe ah, kaw kawaru kawaru boppam loxo ndeyjoor bi la daa jiital nit ki noonu bu daa jàpp bu daa jàpp ah, cër yi yi nga xam ne ko di ko yu yooyu la daa jiital yooyu la daa jiital loxoom bi loxo ndeyjoor bi la jiital masaana raxas loxoom bi nit ki noonu jàpp ba ci ay ah, tànkam tànku ndeyjoor bi la daa jiital maanaam fii lu ñu fiy jàngee mooy lépp loo xam ne lu tey la maanaam li loxo nee joor wala tànk nee joor dañuy jiital lépp loo xam ne lu tey la lépp loo xam ne nag safaan lool la maanaam càmmoñ bi dañ tàmbal jiital loolu la xadiis bi ni di jàngale kon ñu ñëw ci dernier xadiis bi dernier xadiis bis bi an nuaymi mujmiri an abi hurayrata radiallahu anhu an innabiyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala inna ummati yudcawna yowma alqiyaamati gurran muxajjiliina min aathaari alwudu faman istataaca minkum an yutiila gurratahu falyafcal wa fi lafdin aaxar raaytu abaa hurayrata yatawaddau fa gasala wajhahu wa yadayhi xatta kaada yabluga almankibayni thumma ghasala rijlayhi hatta rafa'a ila saaqayni thumma qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna ummati yud'awna yawma alqiyamati ghurran muhajjilina min athari alwudu faman istata'a minkum an yutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء كنا نعيم ibn abdillah al moo jëlee ci abu hurayra radiallahu anhu abu hurayra nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne inna ummati yud'awna yawma a ghurran muhajjalina athari maanaam sama umma bi si yawmal qiyaama bu ñëwee seeni jë ak seeni tànk fii lay leer naññi ndaxte jàpp bi ñu daa jàpp xurnan mooy li weex liy feeñ ci euh, jëwu fas loolu naan xur taxjiil mooy lu weex liy feeñ ci tànk fas loolu naan tax loolu naan taxjiib maanaam yonent bi sallallahu alayhi bëgg wax mooy ummaam bi jàpp biñ jàpp maanaam di raxas xar seen xar kanam gi ak seen tànk yi loolu dana tax yawmal qiyaam suñu moom subhaanahu wa taala bu leen dekkilee maanaam seen jëy yi ak seeni tànk yi day leer nañ ni maanaam day leer ndaxte min aathaari wudu ndaxte ñeexital ci ñeexital ci ñeexital jàpp la bokk après nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne fa man istataa minkum an yutila ghurratahu falyaf'al képp koo xam ne mën naa guddal xurraam naka def mën naa guddal xurraam naka def maanaam ci gàttal képp koo xam ne ah, mën na saa buy jàpp ba yegg si tànk bi mu bañ a yem ci dojol bi waaye ah, continuer di raxas ba ci umam bi bu ko mënee naka def leer na nit ki boo doon jàpp boo doon jàpp di raxas tànk ko raxas ba ci ba ci lii bi ba ci om bi ci nii bi ba ci ci nii bi ok waaw ba ci nii bi loolu mooy maanaawu fa man istataara minkum ay yutila foofu nag daa xaw a lëntu trop ndaxte leen ci borom xam-xam yi nee loolu noonu yonent bi sallallahu kaa wax maanaam fa man istataa minkum an yutila gurratahum falyafal maanaam guddal bi ngay guddal sa gurra loolu noonu yonent bi sallallahu alayhi wasallam musu wax ndax loolu yenuwul maanaa ndaxte na ngay jàppoo na ngay jàppee di lii di raxas xar kanam gi di dugalaale sa bopp di ci dugalaale sa bopp bi loolu yenuwul maana loolu yenuwul maana mënoo raxas sa xar kanam gi ba noppi naan da ngay raxasaale sa bopp bi loolu te nekk moo tax borom xam-xam yi naan loolu noonu waxi Abu la nekkul wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu ci xadiit moom lañ naan mudraj wal mudrajaatu fi lxadiiti ma atat min baadi alfaadi ruwaati taswat mudraj mooy loo xam ne mooy wax joo xam ne ki riwaaya xadiit bi moo ko wax waaye yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxu ko yonente bi li mu wax kay mooy inna ummati tud'awna yawma alqiyaamati xurran muhajjiliina min aathaari alwudu maanaam ummaam bis yawma alqiyaam seen i seen i tànk day leer foofu la xadiit bi yam waaye li ci des te mooy wa man istataa minkum an yutila urratahu falyafal loolu abu hurayra moo ko waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mosu kaa wax moom mu ne benn bis daa mas gis abu benn bis daa gis abu hurayra di jàpp abu hurayra raxas xarkanamam raxas loxom bi ba daanaka yegg na ci màggam bi di raxasaale ba ci màggam bi raxas tànkam yi ba yegg ba ci saaqoy ni ba ci óomam bi après nag ne inna ummati samaatu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xool dégg naa ne diw sallallahu alayhi wa sallam naan inna ummati yur'auna yawmal qiyamati ghurran muhaddiina min athari wudu faman istata'a minkum an yutila ghurratahu wa tahdiidahu falyaf'al comme ni ma ko waxee loolu faman istata'a minkum an yutila ghurratahu wa tahdiidahu falyaf'al maanaam loolu waxi Abu Hurayra waaye waxu waxi Abu Hurayra la waaye di waxi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndaxte xadiis bii nii fukki saxaaba ñoo ko riwaaya te saxaaba yooyu yëpp Abu Hurayra nu mu ko riwaaye moom kese moo ko riwaaye Abu Hurayra nu mu ko nettalee moom kese ko nettalee te Nuaym al-Mujbir nu mu ko nettalee jëlee ci Abu Hurayra moom ko nettalee jëlee ci Abu loolu day firnaal ne kon fa man istataa ay an yutiila ghurratahu falyafal loolu noonu waxu waxu Abu Hurayra la waa di waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ñuy jàng ci xadiis bi mooy maanaam jàpp bokk na ci euh, ñarin li muy amal euh, jullit bi mooy bis yowmal qiyaam su moom subhaanahu wa taala leeral day leeral ay cëram day leeral ay cëram tablugul xilyatu min al mumini xaytu yablugul uduuqu Abu Hurayra nee na Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne maanaam rafetaay bi jàpp bi fi muy yem rek foofu la yem rafetaay bi jàpp bi fu mu yem maanaam nit boo rafet booy booy lii booy jàpp euh, di raxas la loxo yi lii yemale ko ci lii ci conc li foofu noonu la rafetaay bi di yem am ñu ne déedéet rafetaay bi fi muy yem fi muy fi muy tàmbalee mooy fi nga jéggee barabu farata bi fi nga jéggee barab bi nga war a yem ni ki boo waroon a yem ci conc li yemoo fa dem ba ci mag li foofu noonu la rafetaay bi di génnee foofu noonu la rafetaay bi génnee loolu nag moo indi lii wutee bi ne ba xam maanaam dagan na ci kiy jàpp mu jéggi barab yi nga xam ne foofu la war a yem ni ki ki nga xam ne day jàpp di raxas loxo yi ba ci concal yi ba xam dafaa war a yem wala man naa continuer ba ci mag li ëpp ci borom xam-xam yi ni ka Shafii Imaam Maalik nee na déedéet loolu daganul daganul nga def ko fii kay nga la yem loo kay nga war a yem foofu naan da dem ba ci mag wala ba ci ombi yu mel noonu loolu daganul waaye Abu Hurayra moom lu mu gén lu mu déggee xadiis bi dafa mel ne borom xam yu bari nee nañ moom kesee ka déggee noonu moom kesee ka déggee noonu ndaxte comme ni ko nooy waxee moom dara yenn saa dara xam ne foofu lañ war a yem xam naa foofu lañ yem tey euh, naa ba lii insha ba wala insha ni kon xam naa xaw naa lii ndaxte te moom bis bi daa xaw a ñii fi man soo